ndax liñ fi wax bii gannaaw daara ji ñu fi répété newu fi am na koo xam ne boo waxul ak moom sax xam na waaw xam na yaay kan xam na it yaay lan xam na it loo mën ak loo mënul waaw boo waxul ak moom sax xam na ko bu ko defee ci waxin yi ñu waxe ci biir discours arab bi biig façon boobu ñu waxe ci Zayd ibnul Xaarisa bi yonent bi di tàmbaleeg ñoom te diskuur bi mu leen di tenir di leen yóbbu fu sore te ñu dem ca ba bu fajar di jot daf leen di bett am ci guddi nag bu nga xam ni ñàkk teel a ñëwam dafa tax ay waajuram triste ndax defe ni ñi gëmul yonent bi dañ ko dogale fi ñu nekkee di jaaxle Zeydi ubbi bunt bi ñu tëb ci kawam song ko ndax defoon nañ ni dee na ba noppi mais papa ji li ko jaaxal mooy mu laaj ko benn laaj maada manaxakum muhammadum waaw yéen kii kii lu mu def ci yéen lu mu leen may li leen taxa dof nii la mu ne ko muhammadun manaxani at-tumaninata wa salaam mu ne ko gis nga kii ngay wax ñaar yi jëfi ñépp moom la jox xol bu féex ak jàmmi dund waaw ku la may xol bu féex ak jàmmi dund looy wutati kàddu yi ci àdduna bi yëpp boobu kàddoo ko ëpp doole malheureusement léeg-léeg ñu jox la ko ba noppi nga jéem ko monee waaw monee ko ak xaalis walla monee ko ak daraja walla monee ko ak siiwte te fekk yooyu yépp taxawul fenn waaw loolu moo tax xam lu nekk la mu doon ak la ko jar dafay nekk farat xam nga wax nañu ci waxtaan bi dëmb taxawul fenn ka mithlihi shay loolu ñi am dégg te di firee ci xaqiqa waxuma mufassirina yeeg fuqaha yeeg déedéet mais boroom xaqiqa yi laysa ka mithlihi shay ñuy laaj ndax shay'iyatul xaq walla shay'iyatul xalq wax nañu ci waxtaan bi waaw ban la ci parce que dara dara dara melul ni man mais ñu ni dara daray lan parce que yàlla bu tuddee baatu dara dimension bu mu ko ak bu mbindeef dee wax dara dimension yi bokkul nit ñuy taxawàllu ci mbedd mi taxuñu yàlla naan laysa kamithlihi shay boobu yonent bi lay waxal te boobu ku ko ëpp ci ñi yàlla bind amul waaye bañ li dal chrétien yi ci Isa ibnu Maryam dal jullit yi ñu dem ba ba bëgg ko jàppe doomu yàlla yàlla nag di leen wan ne ak auteur bu nit mën a am laysa kamithlihi shay waaw bu ko defee te boobu li yàlla jëfante ak moom moom yonent bi bi ñuy posé mooy ndax yàlla def ko ko may wala def ko ko lebal ndax wasiyatun aw dayn yàlla nag di leen wan ne waaye itam tudd na sax baatu aataak baatu wahabaak yooyu yëpp yuy wane ni maye na waaye yàlla lum la jox bés dina la ko laajaat laajin ya moo nekkul benn loolu tax yonent bi sallallahu alayhi wa loolu mu wax baatu wala mu sédd ko ñoom Zeyd ibnul Xaaris te bàyyu Zeyd bëgg ca dof ku déggoon nit la moom yonent bi parce que yàlla bëggul woon ci moom mu nekk doomu aadama kese kese ndax boo nekkee doomu aadama kese kese wala mu seetlu yem ci bokk ak nit ñi ceeb bi ak bokk ak nit ñi cere ji solu fii tiitaru fii te yooyu taxawul moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mësul nangu ñi nekk ak moom surtout entourage am ñu am connexion bu direct ndax dafa indi lu bees te ñoom xadiisu ahdin fil islaam dañoo jógee ci jaahiliya ay tuubeen lañu kon nag xëy may leen lépp def dul wóor moo tax yonent bi du nangu connecté leen ba mu jeex dafay def ak ñoom partage de connexion waaw waaw xam nga partage de connexion bis bu boroom coupé rek yow nga pare ca waaw parce que dafay am lu ko yàlla di jox mu xam ni ci moom rek la war a yem waru ko jàlle dem ci keneen loolooy tax muy def partage de connexion lum ko ci wóor ni warul jàll ci keneen rekk mu coupé dina am beneen cours yow nga pare bu ma amee jot ndegam dina ko am waaw dafay <laughs> <laughs> Abdou Aziz <laughs> yàlla na am euh, ci oto bi mu li nga wax yëpp d'accord naa ci ba mu des lenn ma ni ko lan mu li nga ni feebar bi du fi jóg foog feebar bi dina fi jóg nag waaw <laughs> ndax liñ la soxlaa dafa bare waaye fekk na waxinu humilité rekk la bañ wan yàlla dëgër bopp bañ ko wan dëgër fit ah góor gi nee na mag ñi daanuñu jàmbat seen tawat dañ ko daan neexal ndax xam ni bu neexee yàlla tawat bi rey leen moo tax ñu ciy teey waaw looloo tax yonent bi sallallahu alayhi wa kon partage de connexion boobu te bëgg bu ma amee yaatu dafa am ay expert yu def benn enquête enquête bi moo di lan moo jotale alquran ak sunna mu di wax bu garaaw alquranu wa sunna nga ni li leen jotale daan la dëgër fit ca waaye fekk na boo amee dégg te dofuloo léeg nga am foo yegg te du wàññi dara waaw xam nga ñun moo tax nit ñi mën a jubóog ñun du bare parce que fii grand boubou la ñu gëm moustache yu weex lañu gëm baatu ilimaan ji lañu gëm waaye li Aziz wax léegi rek am na koo xam ne boo ko fekkee woon ak kilifaam danga naan ndax dukki yi ndax bu génnee ci biti li muy wax ak nit ñi ak bu nekkee ci biir li muy wax ak kilifa gi